bi AS di dajeek APR e bu Juan la euh, ca euh, Dakar euh, Arena daañu jeexale gis-gis ñuy waxtaane tey fitna ak ñàkkum karange ci làmb ji muy agression yi ak yeneen saa su làmb amee mu nekk li gën a ci xibaar yi ne su nañ ci ay faram Maysa Mbaye ak Abdoulaye Diop ñoo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar digg bëccëg yi dañ koy dox ak euh, base navale nord bu Ndar euh, daal di teg euh, loxo benn gaal bu yeboon ay nit bëggoon dem ca Espagne toll nañ nag ci juróom-ñaar fukk ak ñeent gaal googu nag Gambie la jóge woon àllarba bi ñu weesu ñaax ci ñi ci nekkoon sax son lool ba ñu rawale leen hôpital nee na nag gaal googu yeboon na fukki doomu Sénégal ak benn benn doomu Mali juróom fukk fukk benn doomu Gambie ak benn doomu Guinée eh, jamono ji nag eh, ñi ngi leen di eh, saytu ngir xam ñooñu nañ lañu ñan lañu buñ sukkandikoo ci suñu ndaw lañ toggal ca ndax di Ousseynou Diop fekk nag jamono jooju tam ca Mbuur lu toll ci juróom fukki nit ak ñeent bëggoon a mbëkki ñoom la gendarmerie bu Joal tekk loxo ñu bëri nag ci ñoom ca Tambacounda lañ dëkk leeraleeg Ndeye Mati Dieng brigade de gendarmerie bu Joal daal di gàntal tukki altine ci guddi bile yoon ñu jàpp juróom fukk ak ñeenti migrant ci juróom fukk ak ñeent yooyu nag fukk ak juróom ñett yi ay mineur lañu lu ni mel gi mu ngi am ginnaaw bi nga xamante ne ay nit nee nañu ca gaaru ceer bu ngéeñeen dañ fa gis ñoo xamante ne dañoo njort ne dañoo pare ngir mbëkki loolu nag taxoon ba ñu amal benn dispositif de surveillance bu dëgër ci village bu ñuy wax Ndofane ñi leen ñu jàpp nag ëpp ci ñoom ñu ngi jóge ci région bu Tambacounda lii nag mën nañu ne bokk na ci liggéey bu takku bi nga xamante ne ne gendarmerie mu ngi koy def ngir daal dee gàntal mbëkk mi rawatina ak file ci mbuur nga xamante ne fan yi la ñu génn rek am na gaal bu fi jógee daal dee suux juróom fukk ak benn nit daal di ñàkk seen bakken ci juróom fukk ak benn yooyu nag ñu ci ëpp file la dëkk ci mbuur ci quartier bu ñuy wax Tefes Ndeye Mati Dieng Mbour rajo Futur Media. Ndeye Mati Mbour foofa ca Mbour sax euh, kuréel gi euh, di yar wàllum tukki yi di OIM organisation internationale pour les migrations doon fa amal ab ndaje ngir fexe ñi nga xamante jëlee seenum réew rawatina Sénégal ñu xool ba ne jàppale su ko defee euh, mu am ci lu ñu jàpp bu nu ñibbisee loolu nag euh, ab ndaje di lël la ñu amal foofule euh, ca diwaanu sali ngir waxtaanee lu ni mel la ina xa tegal ñetti minutes. dem ba diwaanu Kaffrine foofu nag suba ci àllarba ji la ñuy àttee juróomi e, doomu Ngodiba yoo xam dañ leen a ci ay jàppante yoo xam dafa amoon diggante askan wa ak ñi di takk der yi askan wa nag doon ñaawlu ñàkkum ndox waaye itam facture flex o yi xam e, dafa ser lol ñoom juróom yooyu suba la leen di àttee ci tribunalu Kaolack na tax sax ba kuréel gi nga ëmb ndaw yu e, Ngodiba yi di sàkku ñu daal di dawul yërmande daal dalin leen di bàyyi lol daal liñ bëgg Eh, ci nguurug eh, président Bassirou Diomaye fay dañuy déglu ki yoroon kàddug ndaw yooyu ndaw Ngodiba Euh, Moussa Marigo ci micro ndeew bi. le 2 avril la dugg ci dëkk bi dem kaat mboolem robinet bu nekk ci ngodi ba fii dañ ko coupé dagg tiwo yi ñii ñu yóbbu seen i contre ñii ñuy yàq seen lépp ci dañuy rotaani fenn ci leen dëkk ñu ne dañoo fayu ndox te ñun ba ñuy fay ndox de amuñ ndox mu baax amuñ qualité bu normal jàpp suñuy xale ci kaw doole yóbbu leen tëj leen te tëjuñ leen ci kaw dëgg loolu jaay doole la léegi nag ñun leen bëgg ci loolu mooy suñu xale yi ñu jàpp yóbbu leen tëj leen ci kaw doole nañ leen bàyyi ci nu gën a gaawee kon président de la république Diomaye fay na seetlu mbiru ba na bàyyi xel Ngodiba sun gune yi di jàpp teg leen kaw la teguñ ko ci kaw benn yoon boo duggee ci tool yi fii wóor na yàlla ne tool yi ñu mel sa yaram dina daw lépp luñ fi amoon ci lu baax mbooleem lu ñuy béy ci léjum te lépp dafa yàqu kanja supame salaat carotte nawe banana orange limon lépp ci dëkk bi fi baaxoon lépp dafa wowul sun xale nañ génn ci nu mu gën a gaawee liñ gën a bëgg nag ci fii fileesoo nag génn suñ dëkk fileesoo dagaas Ngodiba fële su DKS di kaddu yi euh, Moussa Marigo doon wax ci turu euh, ndaw yu euh, Ngotiba des ba léegi ci wàllum ndox ak usine boo xam te ni dafay traité ndox mi su ko defee dootu safati xorom loolu nag du saafara ci jafe-jafe yi nga xam te ni askan wi fu ñun ñi ngi koy dund ci wàllum ndox muy xalaatu nag Bruno Derneville jiite parti bii di PAC parti pour l'action citoyenne nee na nag li saafara bi mooy ñu daal di yóbbu nag forage bu Ndiayeen Moussa su ko defee askan wa nekk ci. dal am déwén am ndox saa su ne dañ koy déglu moom Bruno Derneville ci micro Aminata Goudiaby il faut ñu xool ci wàllu ndox mi naka la ñuy def ba mun a indi itam ndox mi nga xam ne day jógee Ndiayène Moussa dinañu am ndox bu doy te ndox mu sell boo xam ne dina mun a méngóog li nga xam ne lañuy pour mu développement bi soxla département ndox kuy kamaj kuy kamaj mu ñun dañu de dessalement continuer ci de dessalement waye likoy dakal moy ñu indi ndox mi nga mu ngi Moussa wa fuñu ñu bare ñu ngi métitlu li nga facture ndox yi kon il faut que xaalis boobu ñu nga xam ne mooy mooy maintenance bi ndax maintenance su unité de dessalement nekkul lu yomb li li koy gën a sax mooy bu paanee tubaab yi la ñuy dem jëli waa tubaab bu ñu jëlee foofu dëkkam fayal ko avion fayal ko hôtel di ko fay ak itam xaalis bu yokku ndax boo deg génne sa réew dem ci beneen réew dañ lay yokkal ay ay prime déjà ñoom seen salaire yi dañu élevé loolu yëpp nga war ko yenu seen o du ko fay loolu Sen'Eau daf koy jël ba pare répercuté ko ci ñi nga xam ne ñooy consommé ndox mi moo tax suñu facture du mun a wàññeeku. mu nekkoon euh, Bruno D'erneville di njiitu parti bi di PAC parti pour l'action citoyenne euh, des euh, ca diwaan googule di ak waa Kaffrine béykat yi nag kontaan lool ci dogal yi nga xam te ne tukkee na ci ndaje bi njëkkaleloon campagne bi di ñëw rawatina nag l'armée bi nga xam te ne dañ koy dugal ci joxem jiw yi ñiy dunde yaakaar nag di xaar mbir yi fu muy mujjee reportage. da obey ñu ngi fii ci toolu gént guy nekk ci commune bu Kacotte fii nag Sidi Wilane ak Mor Cissé di waajal bu baax nawet bi ñu fekk leen ñuy ruuj tool bi jamono ji ñoom ñi leen nag kontaan lool lañ def ci ndogal yi nga xamante ni nag gouvernement bu yees bi jël na ko ngir gën a suqali mbay mi ci atum 2024 bi lee daan na génn ñiy jot ñii duñ jot ñay jot ñi nga xamante ni ñooy jot lañuy jot sax day tuuti ci ñoom lool te yaakaar la ñuy def lu ci bu yegsee daal seen programme day dal di yàqu ndax lañ ci amuñu ko bu fekkente ne noonu lay demee nag moo wax dëgg yàlla teg ko ci la jee buñ ko ci a ñoom ñi leen ngir mën a tàggoo jafe-jafe nga xamante ne nag lañ daan am ci seddaleem jiw bi moo tax ñuy sàkku jamono ji ngir ñu gën a defaraat commission yi nga xamante ni ñoo yore seddaleem jiw bi seeroon na lool saako engrais vingt cinq mille da nga laa sa xaalis sax doo gis foo ko jëndee fekkoon nañu def si bitig yi sax magasin yi soo demee jënd waaye xam nga loolu na ñun trop gu di liñ xaar engrais bi mu yombal mbay rek lañ yaakaar loo ñu si jàppale ca conseil interministériel bi nga xamante ni luy di premier ministre Ousmane Sonko daal di bëgg loko. lëkkaloog jëwriñ ji nga xamante ni nag lañ luy ngir campagne 2024 bi daal di mën jaar yoon baykat yi nga ñoo ci ndukuma man di sàkkuwaat ci nguur gu yees gi ngir ñu doxal yi lay dogal ci nu mu gën a gaawee day aw bee Kaffrine Radio Futur Media Ndeye Awa Beye dogal bob nak ni ñu ko waxee na ci l'armée bi nga xamantene legui day euh, dugg euh, ci joxe njiw bi lolou nak euh, du lu bess amoon na fi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamantene moy Modou Fall jiite FANAPSE fédération nationale des opérateurs privés stockeurs nee sax ci ministère agriculture am na fa ben colonel bo xamantene moko yité wu mom tamit mu léral né mirum digitalisation njaaram jaarale mbiri ci xaralé yi lolou tamit amoon na fi dañ koy déglu mom Modou Fall njiitu FANAPSE. armée bi yàgg na ci am dafa am benn cellule logistique bu ñu logé ministère de l' agriculture nga xam ne ku ñuy wax colonel colonel Coulibaly moo ko jiite ñoom dañu yàgg ñëw ci distribution bi bu ñuy ñëw tam dañu ñëw ci point de vente yi opérateur bi day yóbbu ci point de vente yi ñoom ñu ñëw xool est-ce que effectivement li ñuy wax ñëw na wala ñëwul ci loolu tam opérateur yi seen jëmi bopp ñoom du ñu distribuer commission yi ñooy distribuer opérateur fournisseur la rek boo xam day indi commission bi defal ko ay procès verbal de réception ak procès verbal de fin de session bu paree même digitalisation bi ñuy wax ni amoon na parce que ñun dañuy déposer ay journaux de vente journaux de vente yi mooy tracé producteur bi diw la carte nangam la village sangam la dëkk commission bi jaay nañ ko 100 kilos wala jaay nañ ko 50 kilos loolu du lu bees xanaa ñu renforcer ko rek te loolu le premier ministre wax ni dañ koy renforcer mais néwul dañ koy créer dañuy renforcer la wax. yaa ngi wax ne armée bi kon dafa mës a bokk ci processus bi distribution semence beeg euh, engrais bi kon lan moo waral lool muy am eh, ay luubal ki njuuj njaaj ci mbir mi alors que militaires yi ñu ngi waa xam nga luubal moom Sénégal day baat bu ñu bu ñu tàmm di ko wax waaye kenn génnagul benn opérateur ñu ni opérateur bi moo luubal euh, système boo fi gis nag am na ay manquement ak bu mën a doon ci àdduna mais dañ koy corriger avancé ci loolu lañ doon nekk armée bi day ñëw bu gisee dara loo xam ne jàpp na ne lii lu ñu war a corriger la mu mu ñu corriger ko opérateur dina indi sax gerte ci benn point de vente ñu ne ko bëgguñu gerte gi mu delloo ko dem indi gerte gu baax donc yooyu yëpp dañuy corriger après continuer mais li ma bëgg leeral dëgg-dëgg mooy opérateur bi mënul joxe commission yi ñooy joxe ndax mënul nekk juge et partie yow indi lañ la def loo boo indee na commission bi ñooy constaté ñëw na defal la sa këyit waree ni ñëw na ñoom nag ñu joxe nekkoon mu nekkoon Modou Fall ci téléphone su tey di mbootaay gëmb opérateur privé soccer yi euh, des ba léegi ci wàllum euh, mbay mi ak euh, ñi nga xam te ne ñoo taxaw ngir ñaax ñi di baykat yi ngir daal ñu moytu lépp luy daay jamono joo xam te ne ñu ngi ci tool yi ak leneen te bu ñu deful ndànk ay daay mën naa am waral sax ba ñoom ñooñu ñu daal di jukk ngir ñaax baykat yi ñu gën a moytu Fatou Mbow ñi nekk ci wàllum alam bi nag di am njàqare loolu ci lu jëm ci wàllum day yu ñuy faral di nemmeeku ci dëkku kaw gi tax ba ñuy alerte nekk ci wàllum mbay bi rawatina ci waajtaayu nawet jile amat Kama nekk njiitalu réseau éco citoyen yi nekk. Kita ci Sénégal la. am na ñoo xam ne nag euh, bëgg lu yomb dañuy ratu fii rek daal di boyal euh, bu ko defee ruuj bi du leen sonal loolu yëpp di indi ay daay waaye même bu dul daay bi sax safara soosu dafay rey ay mbindaafoot ah wax dëgg yàlla ñu war ci bàyyi xel bu baax baax. jamono ci tool yi na jamono dañuy évacuer wala ñuy di yi yi tax ba muy lu ci suuf si lu mel sax di am ay gàllankoor yu bëree buñ sukkandikoo ba tey ci ay kàddoom. fekkee dañoo àll bi di rey ay garab di rey ay mbindafoonu yàlla loolu ay conséquences yu bëri bëri jeextal bu bëri am garab yi dafay dee bu garab dee am na lu ñu bëri ñoo xam ne ci ay mbindaafoon ay picc ay gunóor ay lu ne euh, ñi ngi yaakaar ci garab yooyu fu ñuy làqu fu ñuy dëkk fu ñuy dundee dafay nekk tumuranke ci loo xam ne yàlla nañu ko ci biir àll bi. sàmm lii di alam bi nag nekk na lu am solo loolu ci ñi nekk ci wàll gi tax ba ñuy gën di sensibiliser baykat yi jamono ji nga xamante ñu ngi wàcc lii di nawet Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Media. faatu euh, Mbow yi na tegal fukki minute ak ñett ca Kër Pathé ak Camille Bass nekk ca Kër Massar. ak RFM kumpa jeex na. foofa ca Kër Massar la ñuy dem ndaw ya nekk ca Malika ñoom taxaw temm ñu du ñu nangu nag euh, plage bi ñu jagleel ay nit bàyyi ñeneen ñi wante tam suuf yañ fay joxe ànduñu ci nee na nag loolu euh, ci nguur gi génn la woon waaye loolu nag bëgg nañu nguur gu bees gi daal di koy xoolaat daal di neenal euh, suuf yooyu ñu joxe ay nit foofu foofule ak plage yi nga xam te ne ay nit dañ ko bëgg ak akimoo dañuy déglu Alassane Tum Tamboura yor kàddu coopérative ndaw yu Malika ay kàddoom ci micro Aminata Ba interpeller les autorités ci li nga xamante ñu ngi koy ruumanaat mu mu jëm ci plage bi donc ñu dégg fi ay affectation yoo xam danañ ko fi def donc jëm ci PUD bi donc bu ngeen xoolee plage bi ak nit ñi fi nekk nii donc ci PUD bi am na ay attribué nañ leen ko ñu war a privatiser li nga xam ne mooy plage bii nii mu ne département de Kër Massar ñëpp ku ci bëgg a plage bi Malika ngay ñëw buñ toogee di xool bañ privatiser ko jox ko a dem beneen département pour mun fa def lu mel noonu mënuñu ko nangu à ce que ñu jël suñu plage bi di ko jox ay nit donc ñu koy privatiser loolu mënuñu ko am ay MLK yoo bi bu ñu génnawaatee carte bi ak ko gis carrément gis ne am na ay pàcc pàcc yoo te ne def nañ une sorte récemment pour jëf ay bornes yoo xam gis nañ ko fi filmé nañ ko génne les bornes donc euh, loolu moom c'est le régime sortant ñoom ñoo ko def à travers le PD donc dañuy woo le régime bi nga xam ne moo fi nekk actuellement ñu bàyyi xel ci loolu noonu woo tamit le président Bassirou Diomaye Faye comme ni mu ko defee en Mbour 4 te mu ñëw à Malika ah, parce que Malika aussi am na ay mbir yu xew yoo xamante ni surtout lu jëm ci plage bi nii nii donc ay mbir yu garaaw la plage moom dañoo bëgg ñu annulé lépp lépp lépp lu mën a am ci plage plage moom bëgguñu dara nañ ko bàyyi nii mu mel nii mu nekkoon Abdoulaye Tamboura doon wax ci turu ndaw yu Malika wàllum suuf si la ñuy des ba léegi ak dogal bi nga xamante ni euh, nguur gi jël na ko bu yàggul ci ne dakkal lépp luy joxeem suuf ak i kayit ci euh, littoral bi loolu nag ordre des architectes bu Sénégal di koy rafetlu teewul nag ñuy sàkku ñu leeral nit ñooñu daal di fay dëkk naka la demee euh, bëgg nañ tamit ñu doxal sax yi nga xamante ne moo ñeel wàllum dëkkin ak tamit wàllum tabax ci réew mi dañ ci déglu Mouhamed secrétaire général bu ordre des architectes du Sénégal ay kàddoom ci jokkoom ak Anna Rochard. corniche bi moom dafa nek zone bu nga xamante ni li ñu ko doon jagleel wala li mu war a jagleel mooy fu nga xamante sénégalais yëpp dañ fa war a di féexlu di foo ak seen i doom te ji jox nañ ko ay nit ñu nga xamante ni effectivement mënoo xam ban critère sur quelle base est-ce que dañ koy joxe sénégalais et li nga xamante ni mooy l'équité des sénégalais devant leur bien mooy ke ki dëkk Fongolemi comme ko dëkk Matam wala ko dëkk Oussouye ñoom ñëpp noo war a yem ci bu ñuy joxe mbir lu tax nag nu jox ko ñenn ñi bàyyi ñeneen. Dakar bi ngi xat na. dakaar amul espace ñëpp xam na ni nit ñi noo ngi dëkk nu mu gën a bari ci ay appartement mais kenn amul fu mu nekk nii benn possibilité yow ak say doom ngeen génn doxantu en toute sécurité. si fu nga xamante ne déjee nañ ko à la population. parc de Hann moo fi nekk place de l'indépendance. xam nga am na dëkk yu bari yu nga xamante ni am nañ littoral lu ñun rek. boo mm-hmm. demee fu mel na Maroc Casablanca. roi bi mu ñu la fa nekkoon kon ëppoon valeur foofu li nekk fii Sénégal te roi bi di dindi lépp jox ko marocain yi pour que waa Casa am fu nga xamante dañ fa fee dañ fa féexlu te du caaginu féexlu parce que fu ñuy féexlu xale yi dafa ñëw mag ñi dafa ñëw mais day def day am économie day régénérer xaalis aménagement yooyu nu war a def ba nga xamante ni mën nañu koo def ba ñëpp bénéficier si mais loolu mooy yoon corniche bii da nga fiy dugg boo fi duggee nun la doo fi jaar parce que voie privée doo fi jaar dem ci géej gi parce que plage na alors que ñëpp ko bokk kenn mënul bu demee ba dëkk bu nga xamante ni yow mi sénégalais mënootoo am droit accéder sa bien mais ça pose problème et loolu lépp nag mieux vaut nu régler ko léegi bala muy aggraver wu Hmm, mu nekkoon euh, kàddu yi euh, Ahmed Kane Mouhamed Nabi Kane euh, di architecte bokk ci kuréel gi am architecte yu Sénégal yi newoon fii secrétaire général bu ordre des architectes ci mbirum suuf soo sax la ñuy des ak coowal suuf ga ca mburkat ca Thiès maire bu Thiès docteur Babacar Diop di ci indi ay leeral tey ji ci ngoon mu war a jënd ak taskatu xibaar yi bu ñeenti waxtu jotee njiitu réew mi ci fàttali Bassirou Diomaye Faye demoon na foofu la àllarba bi ñu weesu ngir xool mbir mu ne mu demee loolu dogal boo xam te ne gi jël na ko ko dakkal lépp luy wutum suuf ak tabax ci littoral bi ci diwaan yu cees ak Dakar coowal suuf ba léegi bi yoon ca Njaareem ak askan xoddil nekk ca Diourbel ñoom nag dañoo gis ne ay uh, seeni terrain la ñu jaay te loolu ci yoon tax nag ñuy sàkk ci kilifa yi ñu daal di uh, xoolaat mbir moom leer Babacar Diouf ci leeral. askan wi yeewoo xojil di ñaawlu bu baax a baax ni ñu yore suuf si ci seen commune bi Abdoulaye fay moo di délégué de ci bi. dëkk bu ñu lotissé wut kenn amul droit jaay ko domaine national bi kenn amul droit jaay am na benn ku nekkoon ci service compétente man duma ma tudd turam xam na boppam xam naa ko tribunal bi xam naa ko ndax porté naa ko plainte mu nga ci loxoy procureur ba loolu amee dafa am nu mu def ba commencé waat di jaayaat ci loolu laa ko jàpp porté ko plainte kon loolu foofu la ñu toll mu doon loo xam ne suuf si liñ ci aligné woon fi lañ koy teg teg ba buñ ko régulariser kenn dootu ci tabaxat yorin woowu ñu ñaawlu ci suuf si nag moo tax ba fii quartier bi lu fi bari mënu fee am la Cheikh xam xamle moom de conseil municipal ci commune bu Diourbel amuñu mënoo ci am kayitu kër boo bëggee wut courant buñ la laajee kayitu kër doo ko am boo bëggee wut ndox buñ la laajee kayitu kër doo ko am kon xam nga ne siñ bi loolu doy na waar mën a de du loolu rek mooy seen jafe-jafe fu toll nii ndaxte li nga xam ne moom mooy ndox yi jógee ci foosu commune bu Diourbel yëpp falan koy tuur bassin de rotation bi bu nañu ñëw seet nan la ñuy def ba xetam li dootul doote ci dëkk yi wala ñu seet nan la ñuy def doomu aadama bu dee dañ leen di yëkkati ca kaw ba leen xeeñ nañ ñëw yëkkati dëkk bi ca kaw ba kenn dootu ba dootu ñu seet nu ñu def ak ak passion produit boobu amatul luñ koy jëndee dañ koy bàyyi léegi mu dugg ci biir tool yi dox na fi lu mot juróomi kilomètre ci biir dëkk yi tool yi jàmbur moo tax askanu Xoojël di woo autorité yi ñu jël seeni matukaay pour jafe-jafe yi nga xam ne yëkkati nañ ko ñu indi ci saafara ci ni gën a gaawee Bombay RFM Babacar Diouf Babacar Diouf bu ñu leen jógee Bambey del si fi ci Ndakaaru wax ci ñi di contractuel ya nekk ca poste de ñi fa am contrat ñoom nag nee ñu dañu fa dàqum lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk waaye lu ëpp téeméer jëlaat nañ leen ni gis na nag ñàkk yemale dafa am fara tax sax ñu koy ñaawlu ñoom ni ñu bëgg nag ñoo daal di yemale ñoom ñëpp jël leen wala ñoom ñëpp ñu daal di leen di bàyyi seen ñaxtu boobu tey jii police euh, ni ngi fa woon di leen bàyyi xel Fama John السلام عليكم njiital poste lu bees li li koy xaar bëri na ci kanamu direction générale bu poste ay fukki fukki liggéeykat ñu la ni woowee contractuel takk ay morso yu xonk ñoom nag di wax leen metti Malang Sonko moo wax ci seenu tur waaye nag bi mu yëkkati kàddu yi daanaka dafa baral mbir yi ndax way takk der yi jàkkaarloo ak ñoom may ñu leen fu ñu yàkkee seenub nàkk injustice bu am actuellement poste c'est tellement énorme kenn ku nekk def na fii deux contrats voire wax poste am na problème ñu nangu mais am na problème nga ne yow agent yi doo leen reconduire ñu dem ba dernier moment agent yi noppalu trois mois ñu gis ni ki da ngaa signal ñeneen maanaam ñu duggaat si poste bi nga bàyyi ñenn loolu la wax par parloo kumba am ndey kumba amul ndey beneen jafe-jafe bu liggéeykat yi ñaawlu mooy tekki tekkaaralu seen naataangoo syndicaliste te nekk ci kër gi affaire bi affaire de service la ñun ñëpp ñoo ko bokk syndicat yi ñu ci gën a bëri dañuy jël sa xaalis cekof bi booy jéem a dugg dañ lay jox engagement yi nee na après da ngay dañ lay plaidel nga nga xas bi adhéré boo adhéré kenn du la plaidel kenn du la plaider lekk xaalis chaque weer nga leen di fay 3000 francs te booy génn lu ama ñoom ñen ñu ne dañuy jàppale employé booy génn normalement dañ la war a faciliter nga def mais booy génn dañ la wala procédure bi pour nga génn 6 mois la loolu arnaque la arnaque lu ëpp ñaari téeméer agent contractuel yu poste ñooy sàkku ñu dugalaat leen ci nu mu gën a gaawee ci biir kër gi nee ñu nag guddi yi li ñuy xaar mooy ab audience ak njiitu jëwriñ gi Ousmane Sonko bind nañu ko 17 avril ba léegi Fama Diagne njiitu réew mi jamono ji yegg na ca Abidjan ca réewum Côte d'Ivoire mu fay amal ak ngan ñi nga xam te ne ñooy ya nekk foofu la di rafetlu di wax ak ba dalal jàmm teewul nag bëgg nañ ay saafara si seen jafe-jafe Seydou Nourou ay ndawi sénégalais ne foofe ca Abidjan di fa daan seeni doole di xaar yàkkamte lool kii di président Bassirou Diomaye Faye teg fa tànkam. ñun ñëpp mobilisé wu nañ macha allah. Euh, mu nekk visite boo xam ne kontaan nañ si lool. Khadim Diop moom di wax li muy xaar rawatina dund gu metti ñeel ñenn ci ay doomu sénégalais fii ci Abidjan. waaw li ñu koy yombalal nag mooy président bi nag moo ñu koy yombalal nag ci lan jumtukaay nga xamante ni doomi sénégalais yi fi juddu ñu lu mel ni ay carte bon parce que ñu ci bëri na jafe-jafe boobu dañuy am voilà euh, beneen pàcc bi nag mooy ci wàllu social léegi dañoo am fi ay euh, suñu ay mbokki Sénégal yoo xamante ni dañ fay xaw a sonn xaw fee sonn lool yenn yi dañ fay yàgg maanaam ñu jóge Sénégal tukki ñëw di liggéey si ba noppi ñu am fi ay jafe-jafe bu Bousso dafa gis ne bile wisit dina dimbali ñaari dëkk yi gina lëkkaloo gina jàppante te loolee boo amee dina gën a yombal doomu sénégalais yi foofee mun am yenn ci ay document ndax dina tere nelaw. Sénégal di di sant seen présence si problème bu mën di am si dëkk tey di ñaan ñu gën a gaawal këyit yi suñu wàllum këyit yi wàllum euh, passeport yi carte d'identité yooyu ñu ko bëgg ndax day am ñoo xam ne ñu jógee dëkk yu sori delluwaa ak ay gañuwaa ay 400 kilomètres waaye 500 kilomètres di ko wut si te bu ñu ñëwee duñu mën a jot si même jour dañuy obligé delluwaat ko jël si waat loolu wax dëgg dafa métti lool. doomu sénégalais ya ca Abidjan nag ne ñu ngay dalal kii di président Bassirou Diomaye Faye comme niñ ko fay waxee. à quoi bat monsieur le président Diomaye RFM Bitim Réew. ñu ñuy wax ak Koba ana Racha ana Akwaba. jërëjëf xaaj ñoo ko yow la ñuy àndal ci xibaaru bi tim réew yi dañ koy door ak réewum Togo gannaaw ndam ni nga xamante ne parti ba ngànk nguur ga am na ko ci législative yi ñu euh, xaar nag élection régionale yi. élection régionale yi noonu itam la am ndam union pour la république euh, bi nga xam ne président Fort Gnassingbé moo ko jiite euh, daal dina am 137 sièges ci 179 sièges yi nga xam ne moom la ñu doon xëccoo ci élection bi ñu doon amal 29 février bi lay weesu bu ñu sukkandikoo ci. Euh, euh, résultat provisoire yi nga xamné ne euh, dal dina ko siwal niki parti de l'opposition bi fanwer ak juróom-ñetti siège donc am opposition bi nak gis ne jalgati bëri na ci biir élection yoyu lay dañuy déglu kenn ci Paul Apevon, di parti Bidi, di les forces démocratiques pour la République au regard de ce que nous avons vécu en tant que candidat. boo xoolee liñ en tant que candidat en tant que chef de parti euh, ak le lu sunu militants yi jot a dund li ñu def nii mënuñ ko tuddee élection ci pays bu normal ñeneen ñi ngi wax sax ñun waruñoo nangu euh, résultat élection yi nii dafa mel rek nga dem compétition jàkkaarloo ñi nga war a jàmmaar lool ñu am kàttan ëpp la doole nañ yem ci kàttan ak doole boobu rek ñu la ëpp waaye buñ ci rax leneen waaye ñi ni def du dëgg du yoon wax seeni militants ñu dugg ci dëkk bi yëpp buntu xataal suñuy est-ce que Qu'est-ce que nous faisons de ce qui nous ont attribué comme résultat gannaaw euh, tuumal yooyu le nag euh, nguur gi daal na euh, tontu itam jaarale ko ci kàdduk Pascal Bojona conseiller politique u président de la République bu Togo la mu jàpp moo di opposition bi bu ñu àndoon doon benn ci yooyu le élection amaana ñu gën a am taxawaay maanaam ñu gën a am ay siège kon ñu déglu ko moom Pascal Bojona ba tey ci micro suñu naataango yu RFI

am siège waaye loolee mujjul te eh, lu tax sax yëf yi métti mooy ku ci dafa te xam nga ne demoon ji la yi warul demee nonu, li ñu xaar nag mooy eh, cour constitutionnelle daal di joxe résultat yi bu dee nag ay recours ñu bi yi ñu di ko def parti politique yi wala sax liste yi eh, ku ci ne nga xool sa taxawaay bi nga war a am ca cour boobee. auront à exercer devant cette cour. ana dañuy dem ba république démocratique du Congo foofu ñi bombardé gi ñu bombardé xam ay nit ñi seen kër lañ fa dëkkal. ñeenti fan gannaaw jëye boobule am euh, fële ci wetu diwaanu Goma nga xam ne euh, gën kaa néew fukki nit ak ñeent ñàkk ne ci seen bakkan bokk ci ay tuutànk kon euh, ñi nekk ci seen internationale bi ñu ngi woy di ñawlu li ni te bu ñu sukkandikoo ci kilifa wu Kinshasa yi juróomi obbi ñu daal di tiire kon ci camp de déplacés Awa Mbaye ci ab communiqué bu mu génnee démb ci altine ji la gouvernement bu Congo euh, di ñaawlu li nga xamante ne mooy bombardement yi am ca camp dawlaq yu jógee ci Mungunga ci biir communiqué bi nag nee nañu ñu ngi woo ñu teg Rwanda ay daan yu diis yoo xamante ne dina méngoo ko ak jëf yi mu jëf di ay bombardement kilifay Kinshasa gis na yooye bombardement sax dafay nasaxal lépp loo xamante ne àq ak yelleef la jëm ci dimbalante ngir ñoŋal nekkinu nit bu nekkee ci ay jafe ba noppi nag day doon jëf yoo xamante ne dafay fësal Rwanda ci boppam dafa bañ a dégg communauté internationale bi nga xamante ne moo koy woo ci ak dal mu wàccee ay ngànnaayam teg ko ci suuf ngir jàmm mën a dellusiwaat ba noppi retiré ay nitam foofee ca RDC. communiqué bi nag yokku ci ne fitna bi dafay wane ne ñoom dañoo bëgg a wëyal guerre bi ba noppi salfaañe lépp luy woote jàmm ci àdduna bi bu ñu sukkandikoo ci xibaar bu tukkee ci fii nee na Union africaine ñaawlu na ci boppam cong yi nga xamante ne am na waaye tuddut benn yoon ñi ko def. jërëjëf soxna Awa Mbaye xaaj njogu ñu yem fii ci xibaaru bitim réew yi yow tamit soxna Anna. RFM Sport. xibaaru tàggat yaram la ñuy yegg si ànd ceeg Malal Junior Diagne Diagne maa ngi lay nuyu. mi ngi laa fay El Hadj Ndiour. wax ci biyeeleel wala bal bi ak ñetteelu match bu AS Douane tey ci Dakar Arena ñuy dajeek équipe bi di APR wuuteeg APR bi ñu am APR bi mooy armée patriotique du Rwanda. loola bu juróom-ñaari waxtu si ngoon jotee lay ne mu nekk ñetteel bi jongante bu AS Douane ci bile euh, compétition lees kon war a jàpp ci waajtaay gi ak naka lañ ca war a duggee Sode Thiam jot na ko caytu. AS-Douanes ak armée patriotique rwandaise ñaari équipe la yoo xamante ni daanaka ñoo yemagum jaar-jaar bi saison 4 conférence Sahara bi tàmbalee ñaari équipe la yoo xamante ni US Monastir waaye ñàkk ci kanamu équipe bi Rivers Hoopers douanier yi nga xamante ni nag ñam nañu yoonu ndam bugg na ko wàcc benn yoon bu ñu sukkandikoo ca kaleen di tàggat di Mamadou Gueye Paa bi parce que APR tamit dafa perte dafa bëgg tamit daal di ñun tamit ñu bëgg conserver suñu deuxième place donc ñu war réparer ko ak sérénité euh, xam ne ñoom ñëpp ay champion lañu ñoom ñëpp dañu ñëw pour qualifier fële si APR momit nga xamante ci ab défaite la daal di jóge bëgg na gisaat yoonu ndam té lolé sen capitaine bi gëm na ko mu di William Robins. waaw mëna né match bu wuté la waaye euh, équipe bi nañ xaw a tuuti ni ñuy joué euh, xanaa rek ñun ñu yok suñu xalaat ci walu défense yaakaar nañ lépp dina baax. waa AS Douanes yi nag ñoom bëgguñu bënd yoon di wéku ci ay calcul ci njeextalu tournoi bi moo tax nag fi mu nekk nii ñu am yaakaar bu baax ci gile jogante bu ñu sukkandiko ci Jean-Jacques Boissy Comme placé bu ñu nekk instant bi ni respecter coach bi lu wax défensivement bañ a douter si performance comme nous coach bi waxee démb tey noonu la ko waxaatee ku am tir bu libre jël ko Arona tir mu jël dee moom la jël tey tey nekk na si mu dugal ko donc loolu lañ koy gën a aborder défendre bu baax défendre lu ñu mën après offensivement dañuy respecter plan tactique yi rek yàlla lu mu def ñu xam loolu. bu fekkee nag AS Douane commencé na gis yenn ci ay joueurs am amaat adresse bu baax ku ci mel ni Amadou Abdoulaye Harona ci côté APR nag il faut que ñu bàyyi xel bu baax Noël Obedja waaye tamit Dario Hunt Adonis Fayler wala sax Malengam Pio ñu mat a bàyyi xel nañ itam APR AS Douane bu 19h jotee lay doon waaye laata boobu bu 16 jotee Rivers Hoopers mi nga xamante ni dafa tegle ñaari ndam dina jàkkaarloo ak US Monastir mi nga xam ni dafa ñàkk ñaari matcham yu njëkk yépp ñu déglu si uh, Abou Sey moom dafa nekk di topp basket bi sur basket sénégal point com jàngat na lii waa douane basket si ñaari jongante ak li ñu war a def tey jii ñu déglu ko. soo xoolee si jongante contre US Monastir bi gis nañ ne équipe bi dafa en bloc ba le jeu collectif bi gën primé même si le Nigérien Amadou Abdoulaye Aruna s'est distingué avec 35 points mais on a vu un jeu collectif huilé où euh, vraiment on a senti une équipe on a senti une vraie équipe à 5 Lolo gën on a été solide en défense la preuve l'équipe euh, équipe adverse bi dañ à moins de 60 points parce que US Monastir 59 la donc ça veut dire que le travail défensif a été excellent maintenant reste à consolider euh, acquis puis ñu am troisième match bi ñu Y a un réglage euh, tactique sur le plan offensif léegi kon ñu wax léegi li soxal walum euh, football ak euh, ci tugal euh, demi-finale retour ligue européenne des champions Paris Saint-Germain di jouer ëllëgam aveniram tay ji ci ligue des champions ci Parc des Princes. mom 19h lay dambali ak wa Dortmund dañ leen dóor ci ale ba benn bal ci dara France fu mu ñepp nga waaj jëm ci stade ba ngir ne yok doole wa Paris Saint-Germain ngir ñu daan ñi di wa Dortmund ngir mën a dem ci finale gogu finale, gogu sax ñom bu ñu noppé tay dina xam suba. kan lañ ca war a dajanteel seen diggante ak Real de Madrid wala Bayern de Munich lay doon ndax ñaari équipe yooyu dinañu laale bés ni ëllëg dañoo témboo woon ci ale bokk ne amoon nga ñaar sa a ngi morom te itam nu leen fàttalikuwaat Jules François euh, Bocandé nekkoon attaquant bu mag a mag si footballu Sénégal si équipe nationale ak ci bitim réew génn na àdduna ma léegi fukki at ñaar tey ji nag euh, am ci ay membre technique Sénégal. de la santé mère enfant ñoni may li ci yéen kaay dañ cee nag Mamadou Mouhamed ngeen jëf ministre bi ñu dénk napp gi mbaal gi mu sànni démb ci la yéen kaay yi xëy di lëx-lëx ubbi l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne ministère de la pêche des infrastructures maritimes ak portuaires siiwal nañu démb li sub gaal ak bato yu jox ndigal mu di autorisation ngir ñu mën a napp ci géejug Sénégal gi yéen kaay bi nañu toll nañu ci 17 449 gaal 132 bato yoo xam ne ay doomi Sénégal ñoo ko moom ak fukki joxe l'observateur mi joxe nañu ci ñeent fukk ak ñeent permis yi ñu tuddee ay permis type B joxe nañu ci ñetti junni ak téeméer ak juróom fukk ak benn permis yi ñuy woowee ay permis type joxe nañu ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn Vox Populi mi bind ci xëta mu njëkk ne état bi siiwal na liste su bateau ñu autorisé ngir ñu napp ci waaxi réew mi dolli na ci li ñu xamal li ñu joxe ci ay permis de pêche lépp lépp boo ko boolee calculé ko toll na ci juróom-ñaari junni permis de pêche ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett 7493 permis de pêche am na ci permis yooyu fukk ak juróom-ñett yoo xam xëyee xibaar bi moom it teg na ci dañu xamal ne waa ministre de la pêche nee nañu liste yi ñu siiwal boolewuñu ci ñi nga xam ne seeni dossier dañu nee nañu xeltee na ci mbir yi xeeñ na lool ay prête bari na ay bateau yoo xam ne nee nañu ay doomi Sénégal ko moom waaye moomuñu ko ay nit a ko moom dénk leen ko ay prête-nom ca waaye duñ ca lenn leneen li jaaxal Walf Quotidien ci liste ba moo di ci 19 bateau étranger yi ñu ne moom la ñu ngir ñu napp ci waaxi Sénégal yi yi bateau yëpp bateau union européenne lañu maanaam bateau bu ci France moomu rek Espagne la moom amul fenn fu ñu gisee ci liste ba bateau chinois ba bateau russe te ñaari réew yooyu seen digg géejug Sénégal gi yéenekaay bi nee nañu umpul kenn liste bi waa ministère de la pêche publié démb di ca wax bateau gaal yi am sañ-sañu nappi ci waaxi Sénégal yi journal L'As ne nañu bari na yu mu gis ci liste ba yu ko ëlëm ndax gis na ci liste ba ay bateau yu ñu ne jox nañu leen yu ñu moomale ay doomu Sénégal te moomuñu ko ci autorisation yi ñu joxe la mi ngi ñu wax ne Soppa bu Sayer Seck ak Adama ñoo ca ngar dajjo lépp réew mi quotidien ñu njiit réew mi ma ngay régler léegi rëq-rëq ak ndëngate yi am ci géej gi ku tëb daal ci xaal dese na la weneen tëbin dafa mel ne loolee moo dal président Diomaye ci li mu waxoon ne day arrêté travaux yi ñu def ci littoral bi le quotidien mi ngi ñu wax ne Diomaye ma ko waxoon président Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko Diomaye Faye li mu arrêté woon sànc yi ci littoral bi yéenekaay bi nee nañu dafa tàmbali woon juri rolaange ndax gis nañu ñu ci naroon a doxee ñàkk seenub liggéey gis nañu it ay cargaison yu def ay matériel de construction ba fees dell yu ñu bloqué ca poorum Dakar bu lijjantee loolee ba mu féete boor président de la république am na yeneen mbir yu waa ji di Thierno Bocoum di sàkku ci moom conseil constitutionnel ci jamono juñ waajal élection présidentielle leeral nit ñi Karim Wade mi ñu tëye woon ci kaso bi tëj ko ba yàgg ñu génne ko yóbbu ko ca Qatar loolee lépp ci yenn condition ko defe woon réforme foncier yi mu junjoon moom président de la république ceex na bokk mi ngi sàkku ci moom mu dem ca ba jeex te bu koy lijjanti mu bañ fàttewaale azalaay hôtel gi mu dëkkoon bu ca noppee nag loi d'amnistie gi fi defoon bàyyi ci wàllu suuf si loolee kañ la koy def ci hôpital yi réew mi jekk-jekk rek wàcc ci hôpital public yi demal fa boppam gisal fa boppam ya fa am te du yoon gereew bu yàggati miti gi am ci collectivité locale yi anki dina kay ci la xëy ba dañu wax ne tey la yëf yi gën a tar tension bi mi ngi fi ba léegi liggéeykat yi collectivité locale yi ay weere ngi ñu nekk ci xultoo ko ñaxtu ngir di jébaane condition yi ñuy liggéey ndax nee nañu dara baaxu ci te suñu moytul nag anki dina kay nee nañu nit dina dee ci réew mi ay mbokkam duñu am fu ñu ndax liggéeykat yi collectivité locale yi ci tëj armée communale yi ci la ñu jëm lu jëm ci rapport yi ñu fi siiwal fan yi mu général d'État yu OFNAC ak yu Cour des comptes journal témoigné nee nañu am nañu yëkkati seen kàddu ci réew mi di sàkku ci président Diomaye mu def ca la war pression la ñu ko teg ngir mu rëq ndigg ñu ñu épinglé ca yooyu rapport ci ñu bëgg journal bi tudd na ci Alassane Seck président Ligue sénégalaise des droits de l'homme tudd ci Moundiaye Cissé bu ONG 3D tudd ci Ngouda Fall Kane mi fi ne jamono inspecteur général d'État chef de l'État bi fi nekkoon di Macky Sall mi ngi ci xët mu njëkk l'Observateur li mu bëgg moo di sori waa kër mi di waa APR ba noppi bëgg leen a mobiliser li yéenekaay bi di laaj est-ce que dina yomb ci moom Mamadou Sy Albert ne waa l'observateur du yomb te gis na ne bu ñu moytul ñoom waa APR li dal waa Parti démocratique Sénégal moo leen di dal ñu dali ci journal Sud Quotidien ay kàngam yu ñu ràññee ci géopolitique bi la gis ne ñu bari ci ñoom aw nañu yoonu dem retraite te seen app du jot maanaam ak retraite anticipée mi ngi yot ñu bari ci ñoom ñu ci mel ne Khalifa Sall Mamadou di yeesal gi xeeñ ci géopolitique bi Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne bu sottee ñoom politiciens yi ci réew mi seen digg xarxa foofa journal l'observateur xëy na ci def gëstu bu ya témoignage ya fa nekk bu gën a yéeme sa morom rek nga ne bii la am na benn politicien bu ñu xam lool ci réew mi bu xamal waa l'observateur ne benn adversaire politique am moo demoon ci benn sëriñ ngir sëriñ tu ko bëggoon ko yàq waaye liñ naan ko ëpputi mbokk mënoo koo jëw moo ko dal ndax ci sëriñ ba mu demoon ngir dima sëriñ tu sëriñ ba sama mbokk la am na ku leen di ñoom waa l'observateur ne ci élection locale yi ñu weesu Macky Sall su amul woon gàllaaj kon sànku na ndax dafa am ñu taxawoon ngir sëriñ tu ko Ousmane Sonko bool yi fi doon tëgg ka tëgg lu mu di concert de casserole xamal l'observateur ne loolee mystique la président de la république di basiro fay bale gi mu ci campagne bi fu mu jëm ko bale du direction de la santé mère enfant ñoo leen doon may li ci gis-gis. mbokk yi ñu yegg seeg léegi ci gis-gis tey nag li ñuy waxtaanee wàllum fitna ak ñàkk karange ci làmb bi muy agression yeeg yeneen euh, loolu lañuy ñuy waxtaanee ak suñuy gan muy nag euh, Bira Sène euh, président CNG président ñu ngi lay nuyu. président Bira Sène daf ma ni dégg ñu xam naa dañu kii keneen ki ñu àndal mooy Abdoulaye Dembali di taskatu xibaar ràññeeku ci wàllum làmb Dembali ñu ngi lay nuyu. baax a baax. président Birane yaa ngi may dégg. waa waaw waaw ñu ne eh, làmb saa su amee nit ñi seen fit day dem ndaxte ay agression yu dul jeex ah, laataa làmb ji làmb ji ak làmb ji jeexee li ci mujj mooy euh, bërki dem rek euh, diggante euh, ki nga xam te ne mooy Eumeu Sène ak Sa Thiès lan moo waral ba làmb ji di ànd ak fitna saa ne. Eh, foofu bul bul waxee noonu lamb ji am ak fitna nit ñi bu fekké né lamb su amé sa fi day def non nañ indi sen fit waaw teyal sen xel lamb euh, sport bu noble la bu yàgg Sénégal nek fi lamb ji passé muy lamb ëmb sen compte Sa Thiès kenn gisul fitna ci lamb ji ben fitna amu fa su amee la xew xanaa ci biti lamb ji la mm-hmm, ci agression yeeg yooyu amul mm-hmm. amul amul amul ci lamb ji motax mm-hmm. mané il faut faire la part des choses il faut ngeen di territorialiser liy am na ngeen ooyee violence ak agression ak yooyu na ngeen di xam ne li ñun CNG dafa am périmètre bu limité muy nekk suñuy arène yi wala suñu stade bi fay bëri périmètre yoon nag su fekkee am lu am ci biir da ngeen lii wàllu CNG la mais lu am loolu ci biir arène bi wax dëgg yàlla loolu lu nekkul wàllu CNG CNG ay règlement foofu lay yem ci territoire dong dong dong la yem hmm. ndax dañoo nekk ci république boo xam ne dafa organisé wu kon ñun duñu jéggi mukk mukk li nga xam ne vraiment bokk suñu compétence mbër xam na lii su ma ko defee fii lii ma mooy dal superviseur amateur promoteur ba ak yépp ku ci nekk xam nga ne man suma ci fii lay tey nit ñaa ngi respecté kon buñ ne nit ñi su lamb amee certif non ku sa fi dem da ngaa bëgg xëy na mu dem mais gis nañu lamb ji jàmm la man gis naa ñoo xam ne ba ñu ñëwee ci lamb ji dimanche ba ñoo ñibbi li mu guddi guddi guddi nee nañ man ñun day lañ doon dégg ak lañ gisul du benn wax dëgg yàlla dimanche doonu ma ko tardé ndaxte gis nañ fa vraiment animation gis nañ fa son et lumière gis nañ fa bëre bu neex gis nañ fa lépp loo xam ne dafa méngoog làmb méngoog sport. donc mhm. je crois bien que. mais CNG est-ce que amul possibilité xool. ba xam naka la ñu fexe ba en dehors même du stade en dehors de l'arène. ñuy kaaraange assurer sécurité ñi ñëw. parce que loolu day day day. affaire euh, boobu boobu hmm. mun nañoo fexe ba am yow sa kër sa doom commencé foofu man ma commencé sama kër sama doom. ñu commencé waxtaane loolu parce que en fait problème violence c'est un problème de société étant un problème de société société moo ci war njëkk a jóg buñ ci xaar kenn man bu ma ci xaar kenn yow bu ci xaar kenn sa doom bu muy génn wala sama buy génn suma dëgg nag ah defal attention alal di jàmbur ba fa bul tooñ bul def lii bul def laa bul def laa moytul lii moytul laa jaar su nga war a jaar extra yooyu boo demee it toppal rang wa nga jënd billet dugg nag seetaan

mais violence dëkkul fenn fenn fenn fenn violence société bi la jóge société bi la dellu kon société la nekk kon nag ñun nañ ko yaral bopp Euh, nañu ñëwaat ak yow Bira Sène euh, wéyal waxtaan laata la dañuy ànd ak euh, Abdoulaye Dembélé Abdoulaye ci wàll woowu gis nañu même ci biir làmb yi parfois aussi day am ay jàppante diggante ay camp diggante camp yi bëre ba sax ñuy sànnate ay chaise ak yu ni mel toj chaise yeeg yooyu loolu tamit wane ne na fitna day am ci biir làmb ji. waaw maa ngi nuyu président du CNG Bira bi mu ñëwee ba léegi mu ngi def ay jéego. pour vraiment lépp li nga xamante ni muy violence la euh, mu mën a denc làmb loolu moo tax daal euh, gis nga arène nationale bi dafa amoon ay chaise moom départ dafa bañoon sax pour ñu dindi chaise yi bi ñu ko proposé woon pour comme solution contre des de des scènes de violence yu mel noonu mais dafa wax ni euh, su ma ko nangoo de mel ni làmb de wane ni làmb civilisé wu mais bu violence yi ay indispline totale commencé di am doole ci lañ dindi chaise yi Mmh. boobu ba léegi une benn chaîne de violence ci biir donc comme ni ñu ko effectivement c'est une question de société question d'éducation Dans euh, gis nga lamb secteur la bi nga xamante ni euh, wax quatre-vingt-dix pour cent euh, c'est des jeunes ñu fay dem donc c'est une question de jeunesse jeunesse nag fu mu amee parfois dafay am ay scènes de violence ak ay troupes. ay troubles mais nak mais ni ñi def ba canaliser leen lool moy problème bi ay jeunes lañu euh, mais ni ñi def ba euh, violence du am du ñak deru la mu ci parce que bu amé fitna rek dañ nan lamb ji alors que mëna démé baña baña démé bañ a continue ñu continuer di sensibiliser ñu continuer di éduquer suñu doom parce que bu subaa bu lan lan xewé rek dañu yaakaar ni la parce que la lutte dafa am dafa dafa wéx donc mais mën naa wax ni depuis plusieurs mois depuis depuis de saison bu ba léegi constaté wuñu dara. si euh, ay scène de violence ci làmb wala ay troupe luy xew nag moom mooy li nga xamante ne moom mooy ay scène d' agression cest à am na yeneen malfaiteurs dañuy profiter des événements de lutte parce que da ay foule ñoo fay nekk bu ñuy génn wala bu ñuy euh, rejoindre arène bi pour bëree yi dañuy daal di toff si ñooñu pour mën a def nga xamante ni moom la ñu war a def hmm. donc je pense que l' état boppam moo war a jël question de la sécurité euh, des événements de lutte question nationale mmh. parce que du biir biir la dans l'ancien de l'arène nationale et aux alentours de l'arène nationale CNG ak promoteurs yi dañuy jël ay matuwaay c'est ce qui fait que ay deux trois jours avant les combats de lutte dañuy tenir des réunions de sécurité lépp des zones de danger yëpp dañ koy identifier ñu teg fa ay forces de l'ordre mmh. loolu moo tax vraiment maa saluer implication de de de la gendarmerie parce qu'avant ça euh, très rarement les euh, policiers et gendarmerie gendarmes euh, conjointement di dispositions pour que nous sécuriser l'événement avant pendant et après mmh. mais la présence de la gendarmerie a effectivement les mën nga wax lépp ci sauf agression la scène de violence bu daal amnac, am nag da peut-être itinéraire yi yenn champion et populaires yi bu que ñibbi seen kër envahir pour def li nga xamante ni moom la ñuy regretter saa su ne je pense que cette question là dafa war a nekk euh, un objectif prioritaire des pouvoirs publics donc euh, ñu xool nan lañu ñu mën de telle sorte sécurisation des événements de lutte mu bañ a doon làmb kese parce que violence c' est pas l'apanage seulement de la lutte mhm, mhm. secteur booy dem les gens ñu ngi jooy ay problèmes de violence football bi rek gis nañ ko fan passé ci championnat beeg ay jàppante ki xeexoo am na tamit ci football bi ak euh, feneen voilà loolu moo tax ñu ne vraiment na na doon euh, un objectif priorité des forces de l'ordre euh, surtout l' état d'une manière générale euh, s'il faut organiser des assises de tous les mouvements sportifs nous, làmb du football du euh, du euh, on remarque des scènes de violence telles que le Navetan. Nous, mhm. xool trouver des solutions conjointes on peut même aller dans le sens hein, de créer un stade. parce que euh, am na ñi nga xamante ne bu leen ñu euh, pas forcément des forces de l'ordre mais des stagiaires qui nga xamante ne infiltrer les les les foules pour mun sécuriser les événements en tout cas euh, lamb on on on est content actuellement qu'il y a pas ce problème là mais un problème posé est à moitié résolu. Mmh. ce n'est pas parce que temps yi amul des scènes de violence ou agression mmh, mmh. qu'on peut se dire que gonga on on va rester les bras les bras croisés. le CNG à toutes les sensibilités de la lutte nañu euh, lier les mains dans les mains nous les solutions idoines pour éradiquer ces fléaux d'une manière générale. Mhm. Euh, une fois pour toutes. jërëjëf euh, dafay revenir tout euh, nañ ñëwaat ak yow président Bira Sène combat bi combat li ñu nemmeeku mooy guddee gi ñu bëri da koy naqaru parce que guddee bi tamit day favoriser insécurité ñàkkum karange est-ce que wàllu woowu tamit yéen a ngi ciy xalaat ba nga xamante ne combat dina teel am teel a tas nit ñi teel a ñibbi si jàmm ak salaam. waaw ñu ngi liggéey bu baax a ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax vraiment te li guddee bi beneen facteur la vraiment moo tax ñun dañ interpellé beneen domaine xam nga làmb aussi dafa évoluer ñun guddee bi gënaluñu génnañ fi ay texte pour wàññi mais bu ñu bëgguma ñuy méngalee làmb ak làmb démb làmb démb benn combat doon nekk ak ñaari jooni jooni rapidement ngeen bëri timis ngeen ñibbi mais bi dix combat parce que licence dañoo bëri 10 combats nag boo ko organiser. mais 23h quand même lamb 23h euh, bu ñuy 23h c'est trop quand même. d'accord accord naa yow d' accord yow 23h guddi na. Hmm. ba 21h 21h30 ça c'est tolérable mais 23h vraiment guddi mais bii c'était exceptionnel te da ngeen seet facteurs yi xam nga il y a des des des données factuelles yo xamné nit ki da nga koy analyser démb dafa réunion évaluer nañ ko analyser xam nañ liko waral xam nañ également par où attaquer mais bugguma dellu ci ginnaaw mais ma tëb aussi. jéego yi nga xam am na ci làmb ji violence ñu ne ñu ngi koy tudd te pourtant am na lu positif lu xew ci làmb ji tudd ñu ko. mooy Balla Gaye ak Tapha bu ñu nekkee ci diggéew gi bu ñu def seen face à bi. ëmb seen war a bëre gis leen nañu taxawee mu yaakaar ne xëy na mu nap échauffourée mu daw si wax ak ñoom ñoom ñaar ñëpp daal ñu daal di reculer. Mhm. mais ak ëmb seen boobu mais c'est à saluer. Mhm, yi mun ko roy. Mhm. te seetlu ngeen depuis Modou Lo ak Balla Gaye ak Modou Lo ak ak Ama Baldé. ñu daan dee dañuy jóg mais loolu c'est à saluer donc mhm. ça veut loolu dafay soreel dafay tax ba violence bi jóge fi dafay tax aussi ñu xam ne lii sport la loolu nangu nañ ko guddee bi ñun gën a luñu parce que bu guddee man je suis en en sécurité sama kenn mu ngi en keneen mu ngi en insécurité mais danañ ko saafara incha allah mu wàññeeku progressivement ba mu fiy jógee. est-ce que commencé ngeen ci waxtaan ak euh, promoteurs yi parce que ñoom moom seen événement tam ñoom tam mais yéen koy réguler est-ce que. yéen ngi ci waxtaan ak promoteurs yi. par rapport ak guddee bi ñu def ko ci temps programme promoteurs yi dañuy ñaan ne may yu dañoo benn spectacle bu ñu bëgg a dugal ci biir compétition bi. Mhm. ñun ñu analyser ko ne waa d'accord nii lay demee mais xam nga arène national li mu duy démb dimanche pardon est-ce que mosoon na ko duy. entre trente et quarante mille mosul am li fi dugg ci nit dimanche mosu fee dugg parce que dañoo dindi chaise yi léegi pour nombre de passe dafa yokk mais lu tolloon ci doomu aadama bu fekkee ne dugg na fi ci bisimilahi rahmaani rahim génnee ci alhamdulilahi rahim ñëpp ñibbi dans la paix vraiment loolu vraiment gàcce ngaalaama wax lu lamb ça veut que nit ñi aussi ñu ngi reconsidérer seen comportement maintenant la am ci cëb di ñu agressé nit que na ko oo démb ci guddi mën ma ku agressé foofu mhm. mais case ba arène nationale

même de Ronaldo kenn du ko topp buy dem di football kenn du ko topp El Hadj Diouf buy dem kenn du ko topp Sadio buy dem kenn du ko topp day dem regroupement dem mais fii bu ñu ne Eumeu Sène muy ngemb wala saa muy ngemb mais ay junne ñoo nekk këram fas yéene ko gunge bi arène national loolu dafa benn taxawaay. ci ñun ci yow ak ci ñenn ak ci société donc loolu bu amee def yenn ay yenn débordement nañ xam ne loolu xëj na yàllaa dogal loolu làmb moo tëddee noonu ba mu am ñu ci ndax de ndaxte itinéraire dafay sori maa ngi maa ngi gàcce ngaalama waa police nationale aussi daal di gërëm leen sant parce que ñoom dañu leen di bu ñu toogee réunion de sécurité dañu leen di wax ne mbër mi fii lay jógee te dañ koy escorté këram de arène nationale te buy ñëw dara du xew ci yoon boobu buy ñibbi tamit dañ koy jël yóbbu ko ba ba kër donc lolu gàcce nga wa waa police nationale. par contre que insécurité ci population bi lay am. population bi askan wi ñooy nekk ci insécurité mais pas mbër mais insécurité ci population yi la. askan wi seetaan ak ñi parfois ñoo xam ne seen yoon nekk ci lamb ji sax. wa ñoom ñoom la jaar ci sécurisé partout mbër mi jaar ci sécurité et ensuite bu wax ne population bi gis nga fi arène nationale fi nek ni police dafa maîtriser maintenant le site là et son environnement xam nga am na fi cantonnement fi nek dañu sécuriser les populations de ce fait en même temps. te bu lamb amee am na travail bu mucc ay boo xam ne ñun duñ toog ci micro yi di ko wax police nationale da koy def ci doom zone de zone de compétence am ñu ni jaajëfal di leen gërëm di également zone de commande dafay def liggéeyam da xam ne vraiment ku fa jaar da nga nekk en sécurité gis nga demal ne ñun on est dans un état organisé gis nga buñ ne làmb ji buñ ne làmb ji rek fàtte ñeneen buñ ne làmb ji aussi foog ne làmb ji jàmm amu fa jàmm ngi ci ji yaatoo

Euh, mais dama dafa dama yaakaar ni ba léegi trouver guñu solution bu idoine euh, boo xoolee y a quelques années même le préfet de Dakar moo waxoon ne làmb bu mu guddee au delà de 19 heures dañu waxoon ni pas euh, na pare avant 19 h même CNG jël na récemment ay dispositions ay ay règles ay mesures pour que événement yi le grand combat ñu mën ko siffler à 19 h mais boobu léegi euh, amaguñu saafara parce que le dernier événement dem au-delà de 22 heures ça veut dire que euh, euh, même le préfet bu jëlee mesure bu CNG jël mesure ça veut dire que nous, ñëpp xam quand il fait nuit le problème de l'insécurité ça se pose mm-hmm. ça veut dire que donc le problème c'est au-delà de 19 heures ou au-delà de 22 heures Chacun fekkente c'est ça qu'est-ce qui doit être fait pour que l'événement événement ñu mën pendant plusieurs années du temps de et actuellement du temps euh, avec Birasen, chaque année, on pose des solutions, on pose des mesures pour aller dans le sens de terminer les événements à temps. Mais il n'y a, pas, eu de solution. Soit, de respecter les, mesures de manière euh, stricte pour ne pas blesser, soit, nous euh, nañ solution pour bëgg donc dem nous ba sax présentation des drapeaux ni ou bien ñu def ko si biti bañ ko def enceinte bi pour que combat yi mun a gaaw. dem nañ ba wàññi le temps de préparation mystique dem nañ ba wàññi également euh, temps de temps de bac wala yu mel noonu mais ba léegi on n'a pas encore trouvé la meilleure solution mais je pense qu'on doit continuer la réflexion ñu gën a continuer di waxtaan parce que làmb buñ koy organiser sans violence ñun suñu der da ciy rafet acteur làmb ñu ci nekk dañuy kontaan parce que dañuy naan gongo tant que cette question-là n'est pas réglée Mon naa wax ni yenn sponsors yi duñu de ci qui l'a. actuellement làmb doit retrouver son litre d'antan donc on doit tout faire pour gën ko assainir assainir ko que problème le problème actuellement moment mooy nous nu des violences après les événements de lui. donc même bu mhm. c'est des agressions mhm. naturelles nga xamante ça se mhm. passe ailleurs mais on